Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor man ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. mbokki jut mbokki taalib yi waa waa Sénégal gépp maa ngi leen di nuyu te di leen siyaare tey baalu àq ñëpp tey di premier safar mu mel ni. tàbbi nañu ci jëm ci màggal gi ñu amoon mbégte lool tey ñu ñëwoon fii ci Touba ngir barkeelu ci noonee mu ko daan defee moom sëriñ bi eh, nga xam ne bu weer wi masaana teru day daal ñëw bég lool ànd ak ñëw Touba ca noonee rek la ñu barkeeloo ba tax tey nu ne fi waaye it fekk na nu xëy nekkoon jaabel demoon ci àll bi ngir waajal nag yi li ci ëppoon ci nag yi mel na ni ndeysaan ñëw nañu des na sax nag waaye li ci ëpp e, daanaka mel na ni egsi na sëñ dem na ba ñëw e, ma yend woon fa ànd ak tey ak samarak rakk yëpp maa ngi ànd ak sëñ xaadim e, ak Seydina ak sëñ Saliou Suisse ak bokki taalibe yi bañ fa jógee dem nañu ci euh, fa ñu jëkkee mooy sax ci barabu sëriñ bi lanu demee fa lanu dem siyaare ko waaw te doon sàkku euh, mu barkeelal nu liggéey bi ay dogal rek waaye moom day bu nu sañoon mm. moo koy defal boppam waaye nag sunu borom mooy dogal lu ko sob ci biir dogalam yooyu te mu neex nu lool nu nu nu ñëw doon ko tàllal sunuy loxo ngir liggéeyam bi mu fi ba te mu mel ni danoo toogee barabam bëggoon rek mu ñaanal nu ba lépp yéwén salaaw bañ fa jógee nag lañuy dog doog di agsi ci kër gi ñu fekk fii Babacar Mbaye di kilifa dëkk bi ak bokki taalibe yi waaye maa ngi sant bu baax Serigne Saliou tey siyaare bépp cantakoon fu mu mën a ne bépp taalibe murit bépp jullit ci ci weer yu tedd yi di leen ñaanal ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu àggale ko ci jàmm sëriñ bi defal ñu ci ay ndam yu fés te mu ànd ay ngërëm rafet naa ci njort nag ndax moom day kenn defalu ko dara ñun dey wóor na ma ni ay jumtukaayam képp lañu ay dongom lañu danoo bëgg a barkeelu ca liggéeyam ba rek bu ñu sañoon liggéeyam bi de dañ koy dëgëral liggéey bi mu fi bàyyi day sax faw ci loolu la ne nekkuñu ci leneen nag fexe liggéeyam bi ñoŋ liggéeyam bi dëgër te sax faw loolu daal mooy li nga xam ne mooy suñu yitte ngir de moom de soppi na jataay waaye wóor na ma ni mi ngi ci suñu biir te fa mu ne wóor na ma ni ci la ëppee doole fuuf dana nu ko won ba tax na maa ngi sant bu baax tey nuyu bokki taalibe yi di leen masawu ci coono yi tey bëgg lool nag ci ci ci ci nii weer wi tàmbale ñu ngi koy sant sant gu wér nimatu ma dara waaw dëgg yàlla dara naqari wunu nit nag ñu ngi baal ak ñëpp di tàllal loxo fépp ab taalibe ne ngir nga ñëw ñu liggéeyal sëriñ amuñu ci xejj amuñu ci seen jéemunoo ànd ak ma sàmba déemunoo ànd ak ma demba ñëpp lañ bëgg a àndal ñëpp lañ tàllal maa ngi koy waxaat te noppi di ko wax saa su ne ndax loolu rek a ne ci ma maa ngi sant bu baax ci ci ci ci ci nii sëriñ bi doxale mbiram waaw maa ngi sant bu baax yaa ngeen jëf liñ daan def lépp sancaan yi nga xam ni daan nañ ko def nanu rafet njort sañcaat ne lu fa war a dem danañ ko fa yóbbu loolu nag mooy li nga xam ni mooy li ma gënoon a bëgg jàllale ndax liggéey bi ci màggal gi sañcaan yi da cee am solo sëriñ bi daa fonkoon liggéey bi ci sañcaan yi te bëgguma mu mel ni euh, dañuy dañuy def lii bëgg a def lee wala ñuy bàyyi lee na sañcaan yi nañu xam ni lu ñu daan def ci sañcaan yi rek mi ngi fi sëriñ bi dimbali nañu ba danañ ko mën a defaat kon ñu ko yor nañu dalal seen xel te am na ñu koy saytu dinaa leen wax ñoom ñëpp ñu ñu ñu ñu jege leen seet ko ak ñoom ba bis ba la ca war a am yëpp am ci ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam jaa ngeen jëf barka mel bi ñu xel comme jaabel hmm. fekk fa nag bu yéeme maanaam lan nga yëg tey ba nga jógee foofu ak lan fa gis euh, nag yi day ah waaw sant xanaa nag li may jëkk def mooy sant yàlla sant na suñ borom bu baax ci ni mu doxale mbir mi ndax kat nëga ni waroon naa fekk mu jafe lool waaye dara jafewul waaw moom day sëñ xaadim dam na Mali ba ñibbisi na fii may wax defu fa daanaka matul ay bis lam fa def ci juróomi fan juróom benni fan te daanaka lañu fa soxla woon ci ay nag yépp wut na ko kon loolu moom dañ ci am sentiment de satisfaction di ci sant Serigne Saliou bu wér waaw. waaw dernière question message ngay sa message bi ngay lancé rek par rapport ak mbokku taalibe yëpp ñëpp ñi nga xamante ni message bi de mooy maa ngi leen di ñaanal ñu ñëw ci jàmm mm, bu ñu ñëwee ñu àndandoo ko def ko ci jàmm maa ngi leen di ñaanal ñu taw feex bañ a am benn jafe-jafe bañ a am benn gàllankoor ci ñëw ci jàmm ci barkeb Serigne Sall jërëjëf maa ngi sant nag bu baax moom laa waroon a jëkke sax Serigne Muntaxa sant naa ko lool te di ko nuyu nuyu bu tedd ñaan yàlla na eggale ci barkeb Serigne Touba di beral nuyoo sama sëriñ sëriñ Cheikh Mbacké mu sëriñ Saliou ak njabootug sëriñ Saliou gépp maa ngi koy sant bu baax yeesal sama njëbbal ci moom àdduna ak àlaxira di ko wax ne ko ñun day amuñu ludul moom sëriñ Cheikh moom day amuñu ludul moom yaakaaruñu it ludul moom ba tax na loolu it maa ngi koy maa ngi koy yeesal sama digg moom te di ko sant waaw jërëjëf